li may wax nag ci tuuba yu rëy yooyu yi nga xam ne mooy yéefarloo boroom xam-xami xeet bi yépp moo di ñi bind mbind mii nga xam naa ne wax ji may wax dañ ko dégg mooy jox naa leen ab délai seeni fan ñoom yàlla na gudd lool nag na seeni fan gudd lool nañ ko def ba mu jeex ci seet téere boobee wala seet fatawaa yooyu ñu ne ngi ci seen loxo ñu génne ca tasaare bind ci mbooleem làkk yi wax ñooñu ñi ñu tudd fan laa waxe na ay yéefar lañ yëmut ca loola waaye suñ génnee àdduna yàlla na yeex seeni doom ak seeni sët buñ dikkee nañ doon nu dele boobu continuer di seet ca téere ba di ko seet ci fatawaaya nañu génneel askan wi nga xam ne ñoom lañuy waxal di leen nax waa yi ñuy wax foofu fan la yéefarloo ñooñu ci téere boobee ak fan la leen yéefarloo ci fatawaaya yi nga xam ne nee nañ moom lañu yore jàpp naa ne lu yàgg-yàgg duñ mës a génne loolu ànd ak ne téere boobu ñuy wax ab thèse universitaire la boo xam ne bañ defee soutenance ak léegi ñaar fukki at ak juróom la bañ noppee ci bind ko ak léegi ñaar fukki at ak juróom-ñaar la kon téere la bu yàgg su fekkee ne lii ñu wax mu wóor leen ne nekku ca ki ñu koy tuumaal mu weddi ne nekku ca loolu na leen wan ne moom loolu manhaj bu yàgg la woon ci moom boo xam ne du yéefarloo ab jullit ndax xëy na ñaar fukki at rek juróom ci gannaaw mënoon naa yor beneen méthode su boobaa su taxawee fii ci seen kanam danaa leen ah loolu ñuy wax kat ma nga fa woon waaye nag booba ci nangam ak laa toll woon damaa juumoon léegi soppi naa ko kon it ngeen mën koo dégg waaye la nekkoon foofa mooy li nekk fii ba tey sooy boo ñu dellu ñoo ñi ñu ne yéefarloo leen ñu seet leen ba xam fan la leen yéefarloo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 umma bisalaahi wa tawfiqi raaya almuslimina wa ruaatahum mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi dellu siwaat ci suj jataay ak yéen jataayu fukkeel ak ñett ci càllale googu ñu tàllaloon pour mën cee génnee tooxidoona yi nga xam ni docteur Ahmed loo wax na ko ci taqdisul ashxaas fi fikri suufi yi jëmale ko ci ñun ñëpp ñun ahlu tasawuf génnee ñu ci diine ji xotti suñu worma xas ñu tànc ñu saagañu wax wax ñu lu ñaaw lu ne muy lu ñu xam waaye moom loolu doyu ko xanaa mu taxaw ñëpp di ko gis mu ni waxuma leen dara ku teg bu fekkee maa leen wax dara génne leen fu ma ko waxee wan ko nit ñi jataayu tey ji nag ci lañ amee juróom fukk ci ay wax yu ñaaw yoo xamante ni bii wax gi da koy fenloo ndaxte ku ni waxuma dara ñu ne la yaa wax lii te yaa ko bind sa téere ba muy juróom fukki yoon say wax fen na say wax tebbiku na maanaam fenkat la bu rëy bu xamee ak bu xamul lépp a ci yem sànkat la bu mag a mag a mag a mag bu ko nangoo ak bu ko nanguwul te dalil bi mooy lii ci téere yi ci téereem bi bokk tey xam ngeen lu mu wax tey indi naa leen ñeenti point bu njëkk bi xam nga lu mu wax dani képp koo xam ni toppatoo na di lëñbët di càmbar xalaatu sufiyanke yi kooke faw rek dana xam ni suuf sufiyanke ci bopp maanaam euh, soufisme soufisme ci boppam mooy cosaan wala mooy mooy tooke mooy tooke microbe bi nga xam ne bu mën a rayaate la microbe bu rayaate la maanaam nee na wàllu tasawuf te mooy am sëriñ bokk ci tariqa nee na loolu ku seetlu tasawuf bu baax da gis ni loolu mooy euh, Euh, euh, jur suum mooy lan mooy mooy mooy mooy mooy mooy ni koy waxee microbe microbe maanaam ndundat lu sew lay doon lu tuuti loo xam ne bëti kese mënu koo gis waaye nag moo gën a gaaw ci roy mooy tasaare choléra choléra yal nañ ci mooy tasaare jur suum microbe boobu mooy tasaare virus coronavirus bi moo koy tasaare alladi microbe bi nga xam ni yaqdi day rey day rey alal xiirati fiiraange lay rey ci nit ki maanaam képp ku nekk suufiyanke ak fiiraange nga dootul am ndaxte danga ngaa dugg ci loo xam ne microbe bi ci ne day rey ak fiiraange doo fiir wal intisaari tey doo li lil xaqi doo fiir ci dëgg doo dimbali dëgg nee na képp kuy ku kuy suufiyanke rek tijaan nga am murit nga am qadir nga wala benen tariqa ci turuqi lu bo gisee nak may yem ci ñetti tariqa yoyu moy yi yima yima yima xam ci bir senegal dem li amna yenen yeneen waaye ñett yooyu moom xam leen ni amna fi bu baax boma ci laaje man naan la diw sangam ci tariqa sangam la bok boma ma lima xam ci murit bari nañ trop lima ma xam ci tijaan nonu lima ma xam ci qadir nonu dem le yenen nga fi waye mom lima ma mom boy genee bir rew mi da nga deg yenen turuq suufiya waaye daal docteur Lo ñëpp tout à fait boole na leen takk leen genn buum nee na ñoom ñëpp sufiyanke gi ñu doon day rey ci ñoom fiiraange duñ dimbali ak dëgg te tey tey duñ ca fiir bi maanaa loo def ci lu bon mu jëm ci alquran ak sunna seen yoon nekku ci fiirewuñ ko lii nga wax ko nit ki ba pare nag ni génnewuma ko ci diine ji ah loolu loolu loolu mooy la neex nga wax ko rek tam nga ay fen rek tam nga ay fen iyyakum wal kadhib وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا باي لين سن بيسك فن داي تاخ باندي دا خامغني واجي باندي دغ باندي انترناسيونال xoolal lu toll ne euh, sufiyank yi ñëpp ñëpp mu booy leen génn buum ni ñoom ñëpp dañoo dugg ci loo xam ni microbe buy reye rey gu gaaw la alqattaal waxul alqaatile mais alqattaal waa ji ko soxor la bandi bu soxor la nee na tamit képp ku dugg ci ci sufiyank yi maanaam képp ku am tariqa yow moom dooto dootoo fiir ci diine dootoo fiir ci dëgg fiir maanaam mooy nangu wóolu lu ci lu koy yàq dal ci kawam wala wala len da ngay bëgg daal toujours mu nekk ci kaaraange mais ku dugg ci tasawuf nak diine ji doto ko top to noonu doto ko jàppale te loolu du ko weddi benn talibem du ko weddi soo demee ci taqdis asxaas fi fikri soufi juzu awal page numéro 570 da ko ca fekk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu ni woon mooy ku leen wax lu dul dëgg puisque boo dee wax lu dul dëgg day tax nga daal di nekk ab bandi te bandi day tax nit ki def safara te nag nit du bàyyi di fen nit du dañ di fen di fen di fen wa yataxarra kadiba nag moo ci gën a tey yéeme mooy di tànn fen ba wax naa fu dëgg ak fen nekk nga jalax dëgg mu jàll nga jël fen comme ni ko docteur Lo mii nekk nga necce necce ba yàlla bind lu la ci ci ci ci ci ci malaaka yi ñu bind ne yow kazab nga mimma la shakka fihi ku dem ci diwaanul malaikati da nga fekk ni ngóor sii kazabun ashir kazabun خبيث سيتال لي رك سيتال لي سيتال جي جيف دغلو واتال لي واخات دا فاي تي ميم باج بي تي ميم تيري بي ميم ميم جوكي بي جوكي مانام جوكي بو نيك بي موي توم بي توم نيميرو 1 باج بي موي كيت وي خط وي موي 570 نينا ومما لا شك فيه ان هذا الفكره يستأصل جذور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويزرع في المجتمع بذور الإباحية والانحلال يعني مما لا شك فيه لنا خمنا سكساك أموت أن هذا الفكرة نك سوفيانك نك سوفيزم يستأصل دي بودي دي بودي مانام دي بودي جذور الأمر بالمعروف ريني دقل لباخ دقل لباخ مومي خمنا يالله كسانتاني أجرنت بي صلى الله عليه وسلم والنهي عن المنكر tere lu bon loolu nga xam ne yàlla ak yonent bi ñoo ko santaane sallallahu alayhi wa sallam na boo bokkee ci sufiyanke sufiyanke day dem fu ñu waroon a diglee lu baax mu ni bu ko fi kenn diglee fu ñu waroon a tere lu bon mu ni bu ko fi kenn tere waaye doo ko fay jëlee nga xam ne digle lu baax amatul tere lu bon amatul tey nee na boo nekkee euh, euh, sufiyanke doonu taalibe bokk ci tariqa loola ci boppam tariqa bi day ji ci biir mujtama bi ci biir nit ñi da ciy ibaaxiya ibaaxiya mooy lépp dagan na ci yow lépp naan sàngaraak tuxiyambaak kartak rey nit ak njaaloog lépp jëw ak lépp lépp nee na ku nekk sufiyanke fi nga nekk dañ fay jinji moom wala inxilaal ak fekk ci ku ci wàllu jikko lu la neex def day fen dong ba noppi nag xam nga bind lii doyoon na gaaf kenn mësu koo bind ku dul moom mel na moom moo ko mës a bind parce que ñàkk na kersa ñàkk kersa goo xamante ni bii séetatul yàlla ragalatul waa it wóolootul sax waadu wóolootul lu yàlla digge ci lu baax ragalatul yàlla yàlla tëkkoo ci ko ku def lu bon mu fudd sa ndigg ragalatu ko moom daa dem ci benn mujtama boo xam ne la mu fay dund moom la bëgg a ji nit ñi xam nga ni kii kii koo xam ne dañ ne la dañ laa jàngal ba nga war a génn wane ne yow jàng ngay bind lii yaag ña la doon jàngal ay ñaari saay lii ku ko bëggoon a wax ci ñun taalibe yi muy murit wala tijaan sëriñam seede ko wut ñeneen ñu ko àndal ñu seedeel ko mu bind lii ci aw jaamur kenn ñemewu ko billahi ku ko defoon kër Tiwaawan yet tamadu la ëppi buum dañ lay dóor ba yeewal ku ko defoon Tuubaa moom yetti Baay Faal yee lay rey te mooy nga ñëw seet kuréel goobu xam ne bokkul ci murit yi nga bëgg a bind ci ñoom juróom fukki wax yu mel nii te juróom fukk am naa ko ci xam nga ni tijaan yi duñ la ci bàyyi murit yi duñ la ci bàyyi xaadir la ci bàyyi ña la cay bàyyi mooy saay-saay si nga def saay-saay dem ci biir saay-saay sa ñu bàyyi la nga def fi saay-saay comme nii kalb ma ngoog mi xoolal mimma la shakka fii te loolu waat la day fen de day fen amut ba siisi gis maanaam lu amul la nee na foo fekk suufiyanke yi digle lu baax dañ ko fii jële ak tere lu bon ba pare di jëmbat ci seen biir euh, gàncaxu def lu la neex ak fecc ku ci wàllu jikko boo demee ci taqsis asxaasul fikri fii juz bu njëkk bi page numéro cinq cent soixante dix ma nga ca nekk mu continuer ci waxam yu réew yu ñaaw yu xamat dëgg dëgg docteur Lo moo xajam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te sal docteur dëgg dëgg fii mu ni fa haula innaas ñun la ci jublu ñun sufiyanke la ci jublu idan ci kaw lii ma la fenal jële ko ci samay sëriñ yu mën a fen laysa indahum maa yusamma bil xaraam boo demoon seeni téere yi ñuy jàng baat lii dafa xaraam amu ci xaraam amu ci nee nañu nee na ñun ñun sufiyaan kay amuñ amuñu amuñu xaraam dem na dem na dem na amuñu xaraam waaw kon ñun loolu mooy li ñun jullit mais ne bu dee ci wàllu sëy falal uxtu sœur te mooy ku jigéen araamul ala axiha ci frère ñaar ñi kii góor la kii jigéen la ñoo bokk ndey ak baay nee na mën nañoo sëy bu fekkee ay sufiyanke lañ walal ummu taxrumu taxrumu ji moom maa ko ci indiwaale nii pour mu leer taxrumu alal ibni nee tamit kii mooy yaay kii doomam ju góor la bu leen neexee mën nañoo sëy puisque la ko yàlla xurrimat aleykum ja yàlla waxoon ci alquran tënkul sufiyanke yi araamul ci moom comme que sufiyanke lañ fii diini haulaay ci diine ñii ñun ñii la si jublu neeta loolu lépp nag ñi ngi ñi ñi ngi ko teg ci benn pas-pas boo xamante ne bii pas-pas bu yàqu la kon ñun amuñu pas-pas ci li docteur loo wax ñàkk pas-pas di tax na ba xaraam amul ci suñu biir looloo tax ba ñaar ñu mbokk ndey ak baay góor ak jigéen mën nañoo def jëkkër ak jabar ndey doomam ju góor mën na koo def jabar mbokk yi ndax lii dëgg la ci xam ni yaa ngi juddoo ci biir suuf yaa ngi ci ñoom nga jànge ba dëgër seen biir la jànge eh, ci seen ba dëgër doog faa jóge ñu toppatoo ko bu fekkente ni ci seen biir la juddoo naam fefe ba fer yaroo fa ñu jongale ko fa ba mu doon waxambaane wu dëgër moom kan mooy kan mooy baayam kon moom gannaaw nga xamante ni bii uxt muy jigéen ji araamul ci mbokk ci càmmiñam ab jigéen araamul ci càmmiñam mu sëy moom ndey araamul ci doom ju góor mu sëy moom te mu juddoo ca foofa moom moom kuy baayam ku ne mën naa doon baayam ah képp ko wax lii ku ne mën naa doon sa baay seet leen ko rek moom kenn daal moo la mënut a jur ki nga xamante ni bii moo la mujj judd tey góor kooku moom mun laa judd ndax moo la mujj judd mbaa ki nga xamante ni bii bi ngay judd âge bi mu am motagul a am doom nit ki koo xam ni dalaa mag ay cinq ans wala wala yu demee ni yooyu nga xam daal bis bi nga juddoo fekk na boobu moom mënagul a ëmbal kenn ku dul kooku rek war naa mën a doon sa baay léegi moom ndax dana d'accord loolu ñu askan ko ci moom dana ci d'accord du ci d'accord waa nan la koy nan la ci ñàkk d'accord nag xam nga da d'accordu ma ci benn waaye bu ne woon asamaan tiimu man d'accordu ma ci ne asamaan ma tiim téewul moo la tiim d'accordu ma ni man li may dëgg kaw suuf la nekkuma ci kaw suuf ah d'accordu ci waaye moo la moo ci kaw suuf nga nekk de d'accordu ma ne yàlla am na d'accordu ci de waaye yàlla am na de léegi nga ni fa haula ليس عندهم ما يسمى بالحرام فلا الأخت تحرم على أخيها ولا الأم تحرم على الابن في دين هؤلاء يقصد الصوفية كل ذلك بناء على عقيدة فاسدة لم يعتقده اليهود والنصارى دي واحد وي وأنا لم يعتقده ضمير دي ji ku ko moom damiir ji maanaam bu fekk hu gi haa gi nga xam ne damiir la daf ko dellu ci yahud ak nasaraan te fekk na ma ngay dellu ci aqida lam yactaqidha la waroon def lam yactaqid bu ko defee yaa gi ci yactaqidu mooy wane ni faayil gi góor lay doon te mooy yahud ak nasaraan damir ji nag dellu ci doon ha dellu ci ci ci aqida waaye xam xamu ko puisque woon di jàng pour xam mais da doon jàng pour saay-saay en tout cas moom nañu lijjantil moom ci nii ci nii kan moo ko jur kan mooy bàyyam dana metti nag dégg gi dana metti wax gi dana metti mais nag ragal ragal gi moo fi nekkut parce que moom ba muy wax ragalu ci dara bu mu fi di woon naan ay wax yu ñàkk teggi na yu ñàkk kersa déedéet amu fi maanaam leeral la taxlil la taxlil dañuy jàngale il faut mu leer dana metti ci man mi koy wax dana metti ci moom mi koy dégg ak i taalibeem ak i bokkam te nag ku ko dégg it boo dara si gimiñ it boo duggee ba ci ruq da nga ne pourtant nag dëgg-dëgg suufiyanke bi ngayeen bi li mu wax neexul ba neexul ba neexul waaye mu ne su koo dindi puisque moom gannaaw ci la juddoo nag te it màgge ca lañ ko jongale ca ko dalale alquran mu jàng ba suutu ibrahim ca la ca la ca la demee ba nekkoon ab jàngalekat lépp ci seen biir xanaa ka jàngkat ba mën a jàngale koo kooka dëgër na waa léegi ci biir bi a benn millier boo xamante ni bi lu xaraam amu fa moom kon lan ak lan la fa def ak tamit lan ak lan lañ ko fa def te ñàkk xaraam gi su fekkonte ni dafa jëm ci ay yu ñuy lekk te daganul wala yu ñuy naan wala yeneen alaqaat yoo xam ne daal wàllu bokku ca kon mën nañoo mën nañoo rafet njort ci ak juddu gu sell am na fa dañoo saay saay rek waaye gannaaw nag moom moo saxal ni foofa góor ak jigéen ñaar ñu neex mën nañoo sëy même buñ bokkee nday ak baay yaay ak doom mën nañoo sëy te moom fa la juddoo moom dëgg-dëgg nag ku kum maaseel mbaa la nga ko mage bariwul te ngay góor war ngaa mën doon kii dëgg-dëgg <laughs> xam nga léegi atum wengal ngemb ku ci judd wax dëgg yàlla atum wengal ngemb ku ci judd moom say taat nekk ci bitti wax dëgg buñ la ne mi ngi ci bitti kenn tooñu la lii de la ñu yàq mu neex ñenn ñi nag trop rawat na ku ñu wax Omar Mbay mu jël téere bii di ci def lu ñuy wax te amulaat fil fikri suufi maanaam li li do li loo wax mu naqari ñu te loo sax di ko nëbb léeg-léeg puisque loo bëggul liy siiw de lii buggul mu siiw te na freiné nañu bari ci ay ay goneem ni leen bu leen debaatal ci téere bi ku ci am lu muy wax na ñëw ci man te ku ci wéetal ak moom da lay jéem wax léegi lii nañ ko tëral ndax fitna nangam ak nangam ah fitna nangam ak nangam fitna ji kay xam nga li lu ñuy arrangé ñun ñëpp moo ñu teel a taal fitna ji kuy dee dee kuy dund dund li yahlika man halaka am bayinatin wa yaxya man xayya am bayina waaye lii bay ko muy nës nasal ila ajal xeyr musamman abadal abadi puisque yàgg-yàgg dana fiiwaat yàgg-yàgg mbir mi dana jógaat beneen yoon ci biir ay sénégalais yoo xam ne mën naa am sax duñu fi fekk su boobaa sénégalais yi dañ fee nekkaat ñenn ñu di ko gëm ñenn ñu di ko weddi surtout buñ nee ñi fi jàlloon kenn waxu ci dara buñ nee bii bind nañ ko jaar na ci ci ci kanamu ku ñuy wax xaali gay te ci dara waa sama njaboot dañ naan ah sama papa de moom ni mu ni mu mënoon a contrer ak ni mu ci ni mu ci saware woon comme que waxu ci dara kon ba moytuwul affaire bi ñu ñoo ko gisee nu garaaw waaye garaawul loolee laa ci dut bàyyi lii baxi li arab yoo xam inna daginata talqaaha wa in qadumat kal arri yakmunu xiinan summa yantashiru du ma ko ci ba de du ma ko ci bàyyi te ragal lu ma ci tayal naa tayal naa ci dee damay dugg ba ci baat puisque sawaay dëgg-dëgg bandi international la bandi la pire bandi bu ma bandi mandi sax kii est-ce que bi muy naan lii bi muy wax lii naanul sàngara maamu loxi xoox logi iyaakum wal kadiba jàpp naa ni boole woo ca sa bopp ba muy gi ëmb la waaye moytul fen fa inna kadiba yahdi ila al fujur lii nga wax waxi saay saay kese la waxi saay saay képp fujur googi nag moo la yóbbu safara te yaa ngi koy lakk te deewoogoo te boo dee mu gën a tee métti léegi seetal leen ma nag nit ku wax lii bind ko cib téere nii te xam ngeen ni bu ko bindul woon du ma ko waxee nii ñemewuma toog muy sama nawle jëlale naa sax ëllëg yàlla woo ma attama yóbbu ma safara bu ma ci fenoon jëlale naa loola te lu metti la waaye la ko gën a la ko gën a teew mooy mu mu téléphoné ma wala mu ñëw seet si ma ni ma lu tax nga wax nangam ci man ñëw nii ñu la am na ku lay seet nga génn mu ni la man xàmmee nga ma man maay docteur Lo yow yaa ni maa ni nangam lu tax nga wax ko fan laa ko waxee anam waaye ñi def kenn ku bokk ci moom ñi mu ñi mu koo def am na benn baayam bu ndaw buy ànd ak moom ci lii bi téere bi génne yëkkati na ko bi sib conférence moom takk diis baayam bu ndaw boobu di ànd ak moom tortor daal di wax ni téere bii mooy dogguli sufiyanke mooy dogguli tasawuf ci Sénégal waaw yaakaar naa ni dootu ko waxati Sénégal jóge na ko taltal moom it de kii di kii di docteur kii di tortor def toor ak tortor tortor maanaam moom day tor aw toor mooy mooy baay bi doom ji di def aw toor ida kaana rabbu daari bi duffi muuli an wala muula an boo ci wax baax na fa siimatu ahlil bayti kulluhum raqs bu fekkee baay bi kay day day day def ay fen yu mag doom ja di fen fen yu rëy rek ba noppi nag mu taxaw ci ab mi mihrab xam nga ñoom dañoo ñëw lislaam ci boppam moom lañ xajamal war may lislaam lañ xotti xam nga duñ ko xottee di di niru niru lu jullit te fekk ab saay saay di taxaw ci biir jàkka lu ñaaw lu ne nga wax ko fenn wu ne nga wax ko ci biir jàkka ba nga xam léegi xutba boo xam ni lépp ay waale lay doon xutba bisub àjjuma nit ñi toog di la xaar pour julli ngay dal ci kaw ay jaamu du dul dëgg di leen def yéefar di gaarwaale di gaarwaale ba mu neex la ngeen leen jóg leen ñu julli bu ëllëgee nga delloo ko ci war ma jooju ñu xotti lislaam moo tax seen war ma xotti ko na ñoom it de waaye xam nga ni kii taxaw ci min min bar nit ñi di ko xool ñu di ko filme mu ni ñoo ñii di wax ni man dama yéefarloo kenn ci ci ci ci ci ci boroom xam-xam yi ci yu démb yu tey yi di lim di lim bi di lim ba tudd Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mu ni nañ génnee fu ma ko waxee pour ñu xam ni loolu man duma ko wax da xam nga léegi moom boo xoolee discours boobu ndëngte gi ci nekk ak ak tëxit gi ndëngte gi ci nekk te mbuxur yi foo ko fekk day tëxit nag bu dox di doqati ci noonu xam nga tëxit gi mooy lan mooy yow nee nañ la yaa def nangam nga ñëw ci mbooloo mi ni man defuma ko te ñu ni maa ko def nañ indi fu ma ko defee loolu foofu la wax di waroon a yem ñii de nee nañ man maa def nangam man nee naa defuma ko li ñu mën a àtte nag mooy su fekkee ñoom li ñu wax dëgg na nañ ko dëggal te indi fi ma ko defee wala fi ma ko waxee ne mi ngi nii nga déglu soo dégloo ba ba ñu tëlee nga wax wax soññee soññee indiwuñ ngeen leen waxuma ko de waaye daal ni waxuma ko bu doon maa ko wax kon nangama ki na léegi dafa teel a àtte boppam te nag kuy àtte kuy wey sa bopp doo juum kuy wey sa bopp doo juum waaye da doon fen rek dafa tam ay fen yorox jéegub yorox laan yaakaar naa moom la reere bii xaw ma xam ngeen luy yoroxlaan mais jéegu bu yorox ak ganaar a dee ci biir bi di gës mu ngi nii waxu banditisme rek waaye ñu ngi koy laaj rek moom dëgg dëgg dëgg dëgg wilaayatoom nu mu demee ci sell kan mooy baayam bu dee ay waajuram nag séquma ak ñoom lu dul wor ma ay magam ñu mbokkal bàyyi séquma ak ñoom lu dul samay kilifa lañ laa la wax man suñ ma wool woon ma wuy ji leen su ma leen gisee dinaa leen teral ndaxte ñoom lañu war a ne ña nga ca tooñuñu kenn tudduñu kenn taasuñu kenn waaye nag yàlla mi nga xamante ni bii moo mën a génnee deret cim yi kon yu dend te bokkul yàlla mën na leen a tàqale loolu kese ñun def lu dend te bokkul ñun danañ ko mën a tàqale danañ danañ fay ci ki ñu tooñ te duñ tooñ ki nga xam ñu dara kenn ku ne lañ séq ak yow ci wëllëre danañ ko sàmm bàyyu boppam tudduma ko fenn lu dul gën ànd ak boole kooku màggal ndax xam naa koy baayam ndeyi boppam ak màggal ay doomi baayam ak màggal laa leen ameel ak fonkeel ñu dara waaye moom mi nga xam ni nag dafa dugal ñooñu ci seen dafa dugal ñooñu ci seen bopp ni ñoom fañ doon dund lu xaraam amu fa góor ak jigéen nu leen neex ngatu ay bëy xanaa bëy sax dana fa bàyyi ndey ja waaye moom loolu sax waxu ko léegi comme que moom dugal na leen ci biir foofu man moom ci boppam laay seppi comme ni ñuy seppee ab kawar ci biiru mooñ laaj ko ni ko yaw dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaay kan ndax xam nga sa bopp kan mooy sa baay puisque ci nii mu waxee ni benn mu ne day day xet dafa bëggoon lu ñaaw bu boobaa ñu noppul wala nag fenul kon dëgg dëgg moom xamul kuy baayam xanaa mu def test test boobu nu mu tuddee si ADN xaw ma AD ko gars yi di waxee de tubaab man dama jàngul tubaab man ka ga laa yoroo te dama see kontaan ala kulli xaal test boobu moo ko ci mën a génnee te du ko def ndaxte jàpp na ni ma sañ naa wax kenn ku nekk lu ko dem gis nga dem màkk muus kii muusa ko gën a yeewu non non janax janax ko gën a yeewu ndaxte ba muus dikkee changé comportement am daal di dikk wo jenn janax ni ko demal wol ma sa bokki janax yi ni leen nañ ñëw yendu si sama kër man man léegi allaaji laa damaa demoon màkk bàyyi naa fàdd janax janax ja ko daal dem dem dajale janax yépp wax leen di ko muus ni jenn janax dañu ko ah dem màkk de dana soppi aw tur waaye du soppi jikko de <laughs> waaye kii moom dëgg dëgg kii moom warul woon dem màkk makkaam gii moom wax dëgg yàlla moom moom moom moom moom moom bu dajeeg moroom dem màkka yi dana am problème màkk gi dana rus trop ndax foofu la docteur yam de mu cëde docteur nee na te lii ma la wax nii ci ni ñun sufiyanke dara bonul ci ñun lépp nangu nañ ko ba ci wàllu lal bu timis jotee fu waay xaj tëdd ku waay jot jëflanteel loolu mu ñu seedeel mi ngi ko bind ci téeréem bu tudd taqdisul asxaas fil fikri suufi tom numéro 1 page numéro cinq cent cinquante neuf te te maa ngi yóbbante ci moom gaa yi nag nee nañ moom du ma déglu amul sama jot waaye sama jot dana jafe de sama jot moom mu ñàkk ko rek moo ko arrangé puisque nag man sama discours du sedd du neex puisque man man man man ni man man man ñi ngi ma yar ci bàyyi ay tappale wala ñu fudd sa ndigg te nag képp ku tay wuti defi tappale man du ma la taayee fudd nit ñi bu ma jotoon ci moom damay woo gone ñu tër ko ma ci jotoon dañ koy duuma ba muy xool benn place xam na ko sax te du ma seet léegi nañ nës nësal gi lañ xamut pourquoi comme que moom buy toon du nës nësal léegi am na ñoo xam dañu naan da ngay wàññi sa discours pour mu gën a damay yokk kay yokk laay def yokk pétrole ci taal bi laay def xam nga lu tax moom ndax moom bu fekkente ne moom dafa taal sébb sébb boo xamante ne bii waajal na ko ay ati ati ati at def ko sébb bu rëy ma war koo fay ñu ne ma yóbbul benn kaasum ndox damay ñàkk sama ndox benn kaasum ndox fayutub sébb damay taw foofu rek asamaan la la laa yebal rek niñ koy waxati niñ koy waxati aw ka sayi bi mina samaa'i rek maanaam taw bu bari laa koy indil boo xamante ni bii fam ko taaloon danaa ko fay ba def fa ab taataa la doon taal tey jii ma def ko ma dib taataa loolu lay def te du ma ci dellu ginnaaw te nag du ma ci déglu kenn du ma ci déglu ma sàmba du ma ci déglu ma demb moom ba muy wax lu bon lii ci ñun kum mu doon déglu ka ko doon na nga taltif kalima yi dégg dégglu ko su ko taltiifoon lii duñ demee ni léegi lan la jublu ci wax ne ñun lu xaraam amul fi ñun te ba mu lu xaraam amul fi ñun mu doy fa xam ne aw fen la lu tax muy tafsil ba egsi ci ni ñun dañuy njaaloog suñuy mbokk yu jigéen ba yegg ci ni ñun dañuy njaaloog suñuy way wayjur ba pare juddoo ci suñ biir luy tee ba duñ ko ko delloowaat ku ma ko dëggit ma rokkit la ko maa ko def ba ca yax ba ba sàmba di ca dem ba ba xam ku ci man dara te ku ci man dara nag booy boon nga gaaw boo yeexee tuuti ñàkk kii su ma ko jàppoon dootu ko defati ba ba muy dee ñu suul ko déglul fii ñeenteelu tomb bi ñeenteelu tomb bi te ci lay taxaw ci la amé tamit juróom fukki fenn yo xamanteni bi ñim doon laaj nañ indi firnde di guddal seenu àpp ba buñ fi joggé seen app doom ak seeni seut innahum yarawnahu baidan wa narahu qariban wa hum yanhawna anhu wa yanawna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum loolu rek moko dal déglu mu ne wa hadihi al aqidatu alfasidatu allati ankaraha jamiu ahlil ilmi hiya aqidatu jamii suufiya pas-pas bu bon bii bu yàqu bii nga xam ni ñëpp ñi am xam-xam dañoo wax ni pas-pas bu bon la boobu pas-pas mooy pas-pasu mboolem ku la ni ab suufiyanke la te lii ëmb na lu gën a ñaaw sax bi bi bi ko jiitu lim ëmb ci ñaaw-ñaaw moo ëpp اللي بيبنيه فهؤلاء القوم فهؤلاء الناس إذا لا, لا ليس عندهم ما يسمى بالحرام wax boobu li muy ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw bii ko gën a ñaaw ndax bii ëmb na loolu ëmb leneen ëmb leneen ëmb leneen muy hadihi al aqida pas-pas bi alfasida léegi ko xam ni pas-pas bu bon nga am li nga war a fas yàlla baaxul li nga war a fas yonent bi baaxul du ci malaaka yi du bis pénc maanaam daal an tuumina billahi baax la woo ko wa baax baaxle woo ko wa kutubihi baaxle woo ko wal yawmil axiri baaxle woo ko wal qadari baaxle woo ko ku mel noonu yow looy baaxle nee na nag loolu mooy suñu pas-pas mi ngi ko waxee ci tom numéro un page numéro cinq cent soixante kii mooy docteur Lo kii lañ ñu bëgg a jël forcé ñu ko kii lañu bëgg a jël logal ñu ko par force mu ñëw Sénégal gis ni réew mi ñaar manqué na fi xam-xam ak alal te li fi li li ko fi jële li ko fi tax a manqué colonialiste ñoo ñu ko teg tubaab bi moo ñu xeex façon xeex boo xam ni yàq na suñu njàng yàq suñu diine te jekku nañu jekku gu toll ni bu mu fi jógee ñu bokk ci la fi bàyyi ñu continuer xeex boobu continuer nargan yooyu téye ñu ci suuf njàng mi duñu avancé te alal it siyaasa biñ tëral siyaasa bi de ku am alal dangay ngay ko am alal ku ñàkk di dolli ko ak ñàkk boobu mooy siyaasa bi nga xam ni moom la ñu yàlla nattoo ci loxoy tubaab bi yu mu dénk nag loxoy ay africains yu dëkk Sénégal ay nit ñuul comme ñun moom nag mu intihaas mu profité loolu dem ci ay saay-saay yu dëkk ci réewu penku ya ñoo xamante ni bii tubaab yi fi ñëwoon coloniser gënul ñu leen a saay-saay ndaxte tubaab yi xëy na réeré nañ diine xëy na réeré wuñ ko en tout cas ñi moom réeré wuñ diine l'islam mais dañ ko weddi doon ay saay-saay ñëw fal benn waaye jox ko ci alal lu bari ak xalaat yu ñaaw ba pare nag di ko favoriser di ko réel di di wax ay wax yu réy ci moom bu bu bu bu bu fenee bu ngelawalee sax ñu jël ngelawal wi tasaare ko naan naan naan parfum bu neex la ci loolu kese lañ siiwale taqdisul asxaas fi fikri suufi ne taqdis mii téere bu ko gën a bon amul ci kaw suuf puisque soo demee ci ci ci ci ci ba demee Karl Marx téere yi ñu doon bind ñoom moog Lénine yooyu ñoom lañ cay wax séq ñu koy nit ña daanaka boo ko dee seet ay gisiin yu dëng rek la ñuy wax mais ñëw ni nit ñi ay kii ngeen xanaa xanaa waa ji ci waxoon benn euh, philosophie bi ni woon doomu aadama cosaanam golo la kooku de moom wax na tóoti doona te tubaab yi dañ ko ko nangul wahabi yu nii même dañ ko ko nangul ba puisque euh, fikra boobu lu tax tubaab nangu ko mooy nit ki soo soo ko këttee ci cosaanam nga xam ni du yëg ni sosu na fenn lu la neex man nga koo def loo nit balaa moo am lu muy rus wala lu muy bañ danaan man du ma fekk aw askan ma bokk ca ñëw di ca def loo xam ne dañ naan guleet ci lu bon maa ko fa njëkk def du ma ko nangu man famille bi ma bokk ku ne di góor góorgóorlu sama papa def lële rakkam def lee magam def lële baayam ñu ne ma noonu defoon nangam man sama mag def lii sama rakk def lee man ma toog di def lu ñu ni nag loolu pour ñu dindi ko ci nit ñi nañ leen wax ne seen maam golo la woon nga xam ne boo toppee golo da da ci day day aw ñal ngay topp ba yàgg rek ñal wi tasaaroo ci biir àdduna si ci biir àll bi doo xam foo jëm même fikra boobu la bi yu ni jël sol ko docteur loo ni ko na nga na la wóor ni sénégalais yi ay mbaam xooxo leen jur ay fil asli ay mbaam xoox leen mbaam xooxo leen gën sax soo demee lu la neex waxal téere bii bi mu koy bindi ca màkk ki ko doon taxawu pour mu koy bind nga xam ne lu mu pare lu mu bind ba koo koo koy xool ba ne ko baax na booleel ci téere bi kooku silmaxa la du ko weddi moom silmaxa la silmaxa saa ko taxawu ba jox ko téere bi léegi bu fekkente ni am njàng mu bees am na xaraleeg xaraleeg doomu aadama egg na si ñu mën a jàngal silmaxa ba mu mën a taxawu kuy bind téere bu ko bu ko bu ameet man weddiwuma ko waaye silmaxa si lu mu muus muus muus njàccaar li mën naa dugal ci biir téere bi gannaawam loo xam ne du ko ca tàggu te njàccaar lii nag jubul moom seen njàccaar lii saay-saay piir la su ko defee tey foofu laa yem am naa juróomi juróom fukk te juróom fukk bi ci ay fen wu ci ne mën nga koo séddale mën nga caa génne yeneen i fen yu bare bari nga xam ni li ma wóor mooy bu ma toogoon jëlal ko sama bopp ni ma ko bëggee maanaam juróomi maanaam téeméeri fen juróom fukk téeméeri fen ak juróom fukk mën naa leen ko cee génneel xam nga fu ma koy jaare nga fu ma koy jaare bis bi ma amee bis bi ma dajalee lu mat juróom-benni point maanaam bis bi ma ko génneelee juróom-benni fen yoo xam ne fen nag am mbind la muy bind fen yooye ba ma ko ba ko càmbare <coughs> génnee naa ca juróom-benni faqara yi génne naa ci ñaar fukki fen ak juróom-benn léegi waa ji juróom-bennam génne na ci ci ay résultat ñaar fukk ak juróom benn borom juróom fukk bi bu defee ne moom <laughs> li muy génnee kenn xamul nu mu toll juróom fukk bi soo bëggee xam ci ci nii ma génnee ci juróom benn yi juróom benni faqra maanaam juróom benni wax yu mu wax nga mën caa tiire ñaar fukki fan ak juróom benn su su ma continuer woon juróom fukk yi ma bëgg cee génnee ñaari téem ma ma ma bëgg cee génnee ñaata fan a ci nekk xam nga nu may def damay jël juróom fukk bi ma seddale ko juróom benn juróom fukk bi moom laay jël def ko juróom benni xaaj su ko defee daal di jël nag la ma am ma daal di koy multiplier ci ñaar fukk ak juróom benn soo jëlee juróom fukk nga seddale ko juróom benn nga am juróom ñett ak lu tofal juróom ñett boobu ak lu tofal moom ngay multiplier ci ñaar fukk ak juróom xam ne ñaar téeméeri fen ak fukki fen ak juróom-benn lu yu mat sëkk li ma bind mën na sëkk ci génne ñaari téeméeri fen waxal ñaari téeméer ak fukki fen ak juróom-benn ci amaliya bi ma def nii rek te mooy bi bindee euh, juróom-benni faqra faqra mooy ma دكتور lo neena ma wax len faqara bi ma yene mako gëna xam sax suma ne docteur lo ولكن يكفي أن أن أن أن أن نعلم أن هذا الفكر كما التصوف ليس منبعه الكتاب والسنة بل هو فكر دخيل تلقاه الزنادقة والفقوه بالتراث الإسلامي الخالص فلا يغتر به الا من لا حظ له من علم الكتاب والسنه لول موي بن فقره موي بن بوين بن كات موي كاتريم بوين صاح بو خوله موي بن فقره فقره بوبو ما دولي تا بنين دولي تا بنين با ام في جوروم بن جوروم بن يوي نك ما نيو نك خول نك لي تي نيك تي بير اي فن بيسك بيسك بي من نا سي غيني توتي فن غين ديك نانام بو واخه موني امم دوينا رك ني خامني tasawuf bàyyi kowul ci alquran ak sunna loolu ci boppam benn fen la tasawuf bàyyi kowul ci alquran ak sunna mi ngi mel na nga ni fiq bu mazhab imam malik ba bu ci alquran ak sunna tamaaman bi tamaam kon fen la bu ko defee bal huwa fikrun daxiilun muy fenu ñaareel talaqaahu zanadiqatu di fenu ñetteel wa alsaquhu bi turaasil islaami li xaalis di fenu ñeenteel kon benn faqara bi dèjà génnee naa ci ñeenti fen bi ma amee juróom-benni juróom-benni faqra ma génnee ca ñaar fukki fan juróom-benn léegi nag ma continué nag di dajale ay faqaraat di dajale di dajale ba am juróom fukki faqra bu ma bëggee xam juróom fukki faqra yooyu taqriban à peu près ñaata fan ci war a nekk damay jël li ma jotagu na am ci juróom-benn yi te ñaar fukki fan juróom-benn ma jël juróom fukki bi séddale ko juróom-benn maanaam juróom fukki bi da koy def euh, ay ay ñaata juróom-benn nga ci mën a génne juróom fukk bi ñaata maanaam fukk bu ne mën nga cee génne benn juróom-benn mu def ñeent benn boo jëlee ñaar fukk mën nga cee am ñetti juróom mu def suuti boo jëlee fanweer mën nga cee am ñeenti juróom-benn juróom-benn yooyu boo paree rek nga jël leen multiplier leen ci vingt six nga am deux cent seize yu tofal ci ay fen lii mooy liggéeyu nguur si te wallahi al azim li ci téere bi jeexagul de lii dama koy def pour dimbalee ko ñu bari awalan dimbalee ko ahlu tasawuf pour ñu gën a moytandiku loo gën a xam ni dafa bëgg a ruuru ci suñ biir waaye bokkul ci ñun gën a ñëpp gën a xam ni moom yéefar la ñu jàpp te ci ay xaleem yi muy liggéeyloo tamit lii lay liggéey ci seen biir loolu yi maam góor njaay ñemee wax ci ñun ñemee ko wax ci tariqa murit di ko wax ci tariqa tiijaan Khatim Touré noonu euh, Cheikhou Cheikhou Cheikh euh, Ablaye Gaye noonu liñ ñemee yekk Cheikh Ahmed Tidiane dara dara xiiru leen ci dara dara waralu ko lu dul loo xam ne docteur loo da bind te ba mu ko bindeeg léegi yàgg na te dégguñu nag lu ci kenn wax ci naqarlu wala ci ci ci ñàkk d'accord pour ma leeral loolu ak tamit leeral xale wahabi yu nii ci ni ñoom ñi ngi ci erreur que seen sëriñ bi lii mu wax moo ko tax a nëbbutu moo ko tax a maw ne mëttub mëttub noor dem fa mu nekk taxul nga gis ko mëttu noor dem ba ca ba ca ba ca nekk taxut nga gis ko ndax day dugg ca lëmm soxlawul lum lekk soxlawul mu naan soxlawul ndox it tëdd rek lay def ba dégg ni bët seeb bi ni muy doog a génn loolu tamit boo gisee muy maw noonu yi ne mbëttum noor wut ay garde corps teg ci bunt bi lii mu wax a tax ne moos qaala allahu qaala rasuluhu kese nga wax ko Sénégal mu jural la ngay làqatu loolu wax dëgg yàlla yéen xale yi xam ngeen ni Sénégal yéen xale wahabi yu ni laa wax de xam ngeen ni Sénégal mustamel noonu te du nu mel kon nag ñoo ngi taxawal foofu te di leen xamal ni docteur Lo ñu ngi ko topp akub laajut man huwa abuka docteur Lo man Lo man huwa abuka man waaliduka yaa docteur leeral ñu foofu ba pare su leeree luñ ciy teg ñu toog ñu toog ko caa teg te it bëgg a wax lu ñaaw taxul ñu wax la lii waaye dañ laa bëgg a femm dañoo bëgg nga mos wax ju naqari di ngay jéem a teg nit ñi pour nga xam li nga leen di teg nu mu mel dañ la koy teg ba nga mos métit wi ndax lee nga mën a tuub am na benn benn benn wahaab yi am na benn wahabi boo xam ni dafa merewoon yàlla dafa def ay examen jàllul te it du jàll ndax jàngul mu léegi nag mu mere yàlla xam nga ba mere yàlla moom wahabi bi nu mu def dafa bàyyi ba yoor yoor mu jàpp ba set daal di jël ab si sijaada teg na le daal di ñëw daal di taxaw ba mel na kuy war a julli ba ku ko gisoon daal yaakaar ni kee day kàbbar ba mu yëkkati loxo yi sax ba yëkkati loxo yi ba wax allahu akbar def ci mu ne bàyyi naa ko sax ba mu ne bàyyi naa ko muy wax ak yàlla naan ko waaw kay ndax yàlla nga mos tas yaakaar ni mu méttee <laughs> yàlla lay xulool kët naan yàlla waaw kay léegi bàyyi naa julli gi pour nga xam tas yaakaar waaw moom bu julli woon lu lu ci yàlla di am bu julliwul lu ci yàlla ñàkk wahabi yul foofu la mu xelam toll foofu la mu xelam toll waaye man fikra bi li ma ci bëgg a wax mooy pour docteur yëg nii toog rek yor sa xalima toog ci birub jàmbur wala kërub jàmbur walla néegub jàmbur léegi di xas ay nit nu la neexe da nga a génn nag ci mbooyu mi ñu war laa delloo xas yo na nga ko doon xastee na muy mettee ndax yàlla mu bàyyi ci xel bu ëllëgee mën cee dellu ginnaaw te nag dana naqaree saafara lii ñu koy waxal nii dana naqaree saafara ndaxte ñun ñu koy wax ñun la gën a naqari kum naqari rek ñun ñun la gën a naqari ndaxte daanaka fuñ ko waxe dañu faaw ñu siwal lu ñu waxoon lu neexul il faut nga nettali luñ la wax lu neexul luñ wax say bay lu neexul doog caa mën a teg loo see teg neexul li waye docteur Lo moñu ci jëñ te moñu ci benn pex su ko defé ma ngi leen di tagu fofu inshallah taala bañ dajawaat balay yàgg alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh